dal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek koom-koom nga xamante ne nag ko ci 5 virgule 3 rek daal di dem ci 4 virgule 1 mbir mu nu mel boo xamante ne rek ñii di fonds monétaire international ñoom ñoo ko daal di fësal ñoom nag la ñuy daal di xam ne lu wund boobu le mbir nag nekk na manifestation yi nga xamante ne rek doon nañ ko def ni mois de juin bi ñu génn ba tax na nag secteur bu commerce bi nag jamono ji am na impact lool ndax yooyu lay yàqu-yàqu nag da koo daal di bu baax bi ci topp rek mooy après condamnation bi nga xamante ne rek def nañ ko njiital opposition bi di Ousmane Sonko ba noppi rek éliminer parti bii di Pastef mbir mu nu mel nag dafa am ay conséquences yu bari laal na koom-koom yi wante nag laal na bu baax nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñeen ci ay nit ndax fukki nit ak joxam benn rek ñàkk nañ ci seen bakkan fii ci Ndakaaru ak ci fi nga xamante ne moom mooy ci Sikicoor ñu fàttali nag manifestation yi nga xamante ne nag amaloon nañ koy yàq yi nga xamante ne rek doon nañ koy yàq nag jëmale ko ci installation bi ñu doon def ci BRT bi ak station service yi moo xam magasin yeeg Auchan yeeg ak leneen loo xamante ne rek ciblé woon nañ ko mbir mu nu mel nag bloqué woon circulation bi ba tey jii nag kuppe lu bari rek ci wàllum koom-koom ci biir réew mi ak bitim réew ba tax na nag fonds monétaire daal di nay def boobu lee xayma bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek jëmale ci annonce bi nga xamante ne nag kii di njiital groupe média Youssou Ndour daal di woon na koy def ginnaaw rek mooy ci kanamu Macky Sall moom nag dafa daal di rek su xalaat bu baax mouvement bi mu dëppee fekkee ma ci boole ndonte nag moom mu nekkoon président bi ni ki tey ci alxam ni ki démb ci alxames yi nag amaloon na ab communiqué boo xamante ne rek doon na ko jagle ñu fàttali leen ki nga xam ne moom moo nekk conseil exécutif bu mouvement fekkee ma ci boole nag ni ki démb rek yemoo ko juróom-ñaari fara ci weerum satumbar doon na def ab réunion foofu ci siège am waaye nag ki nga xamante ne moom mooy monsieur Youssou Ndour daal dinay génn nag ci mouvement Benno Bokk Yaakaar mbir mu nu mel nag ay ay waxtaan nag ah, daal di woon na fay tukkee ndax ki nga xamante ne moom mooy conseil exécutif bu mouvement politique nag ma ngay daal di rek wane soutien total bi nga xamante ne rek def na ko nag jëmale ko ci seen président bi eh, di Youssou Ndour ginnaaw démission bi nga xamante ne rek def na ko fi nga xamante ne moom mooy ca ministre conseiller de membre coalition bu Benno Bokk Yaakaar mbir mu nu mel nag maa ngi koy bu baax nag di rafetlu bu baax engagement bi nga xamante ne rek def na ko ak loyauté bi nga xamante rek moom président Youssou Ndour ak képp koo xamante ne rek membre ga ci kuréel gi di fekkee ma ci boole nag jëmale ko nag ci kanamu kii di Macky Sall président de la république ci diiru fukki at ak benn yoo xamante ne rek ànd nañ ko di fa liggéey liggéey bu mucc ayib tax na naka conseil exécutif bu fekkee ma ci boole nag ma ngay encouragé bu baax kii di président yu Ndour mu daal di gën a góorgóorluwaat rek ba jàmm des waat euh, ci xolu askan wi wante nag mbir mu nu mel buñ ko defee rek dina jur avantage bu rëy rek ci koom Sénégal moom nag la mu daal di xam ne ba tey rek ci mouvement bi di fekkee ma ci boole euh, engagement bi nga xamante ne rek def na ko jëmale ko nag ci citoyens yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy service exclusif yu nekk fi nga xamante ne moom mooy ci biir Sénégal ba tax na nag kii di artiste bi nag jotaan na ab libertéem ci wàllum action ci wàllum politique Youssou Ndour nag daal di nay démissionné fi nga xamante ne nag moom mooy ci ministre conseiller bi nga xamante ne moom lañ ko tabboon kii di Macky Sall nag moo ko daal di joxoon ginnaaw ab poste boo xamante ne nag amoon na ko. moom patron groupe Futur Média bi nga xamante ne nag woon na ko ci gouvernement bi ba mu nekkee ministre du tourisme et des loisirs nekk ñaax fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum 2012 mu nekkoon 2 septembre 2013 gannaaw atum la mu rek mu daal di defoon li nga xamante ne moom mooy passage jëmale ko nag ci boobu les ministre de la culture ak tourisme jamono ji nag dafa daal di démissionné rek ci poste bi nga xamante ne nag kii di Macky Sall rek jamono ji kii di Youssou Ndour nag dafa décidé rek ngir bokk nag bu baax ci Benno Bokk Yaakaar mu nekkoon ab coalition boo xamante ne rek majorité présidentielle moo ko occupé woon jamono ji nag départ Youssou Ndour ci boobule coalition comme nuñ koy waxee ci boobule palais nag ndax du am ay njeexital wala mu am ay malentendu yu ci diggante mu président Macky Sall loolu yëpp ay laaj la wante nag relation bi nga xamante ne rek amoon na ci diggante ñaari homme d'affaires yi ki ci mel ni Youssou Ndour ak ki nga xamante ne nag moom mooy Macky Sall nag waxtaan nañ lu yàgg. rek laataa nag ñuy laataa nag boobu boobule démission di am ndax ab entretien nag lañ ko daal di defaloon ci boobule entretien amoon na ñaari décision yoo xamante ne rek kii di Youssou Ndour daal dina koy njëkkal daal dina koy amal bu ci njëkk nag mooy mu démissionné rek ci poste bu ministre conseiller beneen bi ci topp rek émancipation bi nga xamante ne nag amoon na ko ci boobule kuréel di Benno Bokk Yaakaar mu tourné ko ginnaaw campagnage bi nga xamante ne rek amoon na ko ci diggante ma ko président Macky Sall ci diiru fukki fukki at ak ñaar kii di président de la république nag jamono jii nag kii di Youssou Ndour daal dinay créer lii di mouvement fekkee ma ci boole ndax li nga xamante ne rek lu ëpp wala lu jege rek un décennie kii di Youssou Ndour nag fideloon na lool nag ci Macky Sall ndax liggéey na liggéey bu mucc ayib rek ci fonction bi nga xamante ne rek euh, joxoon nañu ko ngir mu déterminer ko bu baax wante nag raison bu nu jamono ji xëy na rek affaire socio politique la moo tax artiste bi rek daal di nag tourné ginnaaw fas yéene nag dund dund bi nga xamante ne rek moom la bëgg dund maanaam delluwaat ci musique bi ak engagement personnel bi nga xamante ne rek kii di homme d'affaires bi amoon na ci wetu Macky Sall mbir mu nu mel nag ndax dina impacter business Youssou Ndour wala rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy groupe de presse bi di GFM exposant bi nag daal nay am ay risque bu baax yoo xamante ne nag wante nag kii di Youssou Ndour rek dafa daal di jël parti place moom nag la mu daal di xam na rek moo di ne euh, du def leen loo xamante ne rek da koy indil ay bakkaar wala mu ci def loo xamante ne rek bu ci duggee ëllëg dina ko daal di rëccu moom nag lañ faral di fàttali rek moo di ne groupe bu presse bii di Futurs Médias nag yàgg nañ ko attaqué ba noppi di si ciblé ñenn ci si wante nag loolu yëpp terewul mu xoof terewul nag mu continuer bu baax li nga xamante ne nag moom mooy liggéeyam ci boobule bërëbu tasukaay xabaar naam sax majorité présidentielle bi nag la antaloon ba tax na nag yuusu nag moom nag la mu daal di xam ne rek moo dina yàgg na fidèle yàgg na loyal ci bépp liggéey boo xamante ne rek def nañ ko ak kaddu goo xamante ne rek joxe woon na ko ndiki 2011 ba tax na nag libertéem gi mu am ci wàllum action ci wàllum politique da koy daal di rek mayaat doole Youssou Ndour nag jamono ji nag daal dinay euh, daal dinay tourné bépp remobilisation boo xamante ne rek am na fas ne nag jublu ci partem bi di fekkee ma ci boole ndax gis na ne rek échéance politique bu futur artiste bi jamono ji nag ñu ngi koy redynamiser bu baax gën koo massifier gën koo taxawal ba waral nag mouvement politique bi nga xamante ne rek amoon na ko ginnaaw nag muy dem fekk ji kii di njiitu réew mi Macky Sall bu nekk rek mbir moo xamante ne rek dafay am allié ak président la ak lépp lu mu ci mënti doon rek njaw a ngi des ñu xam ne wala wanent wala wala nag nañu resté rek xool fii wanent di mujjee ak ay gëttam wante nag li daa balee rek mooy Youssou Ndour nekkatul ci boobu lee parti ba xam nag day rejoindre Macky Sall waaw wala déet nekk na chantier boo xam xamante ne rek jamono ji ñu ngi koy eh, xaarandi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaa info